ànd ak yéen fii ci euh, Dakar Net ci seen émission bile di euh, wax euh, feeñ ba tey ñu ngi fii ci Tëngéej di leen indil lépp loo xamante ne moo xew ci dëkk bi ñu ngi fii nag ci juuti bi boo nee juuti bi bokk na ci identité Tëngéej ndax fii dañ fiy jaay ay juur liñ ci gën a ràññee mooy xar mais temps yi dafa am benn phénomène boo xamante ne dafay xew mooy lan dafa am benn jigéen boo xam ne dafa ñëw jënd xar sarax ko benn paa paa bi nag euh, ci saa si dafa ñàkk bakkanam ñuy seetlu ne euh, saa su ne élection fii ci Sénégal jëf yu mel noonu dafiy dafiy am ñu ñëw fii nag waxtaan ak waa daral bi laaj leen lan moo ci seen xalaat ak euh, affaire bi nu mu demee. ba tey ñu ngi fii ci juuti bi fekk si fii njiit bi ñu war a waxtaanee ak moom ki ñàkkoon bakkanam ci sarax biñ ko saraxoon papa doy nañ la. waaw ñu ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. fekk la fii ci juuti bi. alhamdulilah. ñaataat yaa ngi fi. fii am naa fi 40 kon lépp lu fi mos a xew rek fi la la fekk. ci kër fekk bu dee fii ci biir daral bi. waaw boo nekkul voyage maa ngi fi. papa ñu seetlu ne eh, kañu saraxoon eh, xar bi mu gaañu fii ci buntu daral bi la gaañoo yow lan moo ci xalaat. mooy du suma xalaat. Mm-hmm. ci li ma fekkee la. Mm-hmm. man lu ma ci fekkee mhm. dafa jógee këram mhm. sant yàlla mhm. dem almadi di ñëw di jëm ci juuti bi pour jël oto ñu romb benn xale bu jigéen di jënd xar boo jëndee xar mu sarak ko moom moo yeew xar bi delluwaat ñëw wax ak borom taxi borom taxi ma borom taxi daan bi nee ko 4000 moom mu ne 3000 la mën a fay. jubu wuñ. ma wàññi waat ñiw toog ci wéet xar wéetu xar bi. moo génni xaw ma 50 fara xam am na lu ma génni daal ne waa ji ma demal jënd daal ma ndox. kooku dem di jënd ndox ñiw boo jegee ko. moo far daan ba ma faree daan na man bu ma jógee fii. dem fekk naa nelew na ba pare. waaw ma woote police ñu ñëw. set ko foofu lépp luñ ko mën a waxee lu dul nii doonul dikk nii naa la demee bu ma jabaram ñëwee boo fii nee ne moom foofu la yën bu muy gont moom moo ko gunge boo ci taxi mu indi wa mu yor ay reeram duggaat reer bi génni xaalisam fayal jëkkër gi pour oto bi wàcc ak fii ci juuti bi waaw kon kay ndeke moom gaañuwul ci saaj saaj parce que am na ñoo xam ne dañ ne da koo jox xar bi retourné ci foofu la daanu. loolu amul borom taxi yi ma doon waxaale ñu ngi fii bu leen laajee dinañ leen ko dem na boo waxaale ak borom taxi kooku ne 4000 moo ma ne 3000 jubuwuñu ma wàññi ko waat ñëw toog ci wet xar bi waxtaan fa ak yenn xale yi tuuti mhm. ma yónni leen ndox awaa ndox bi ñëw ci loolu la daanu. waaye nekkul jox ko naka rek dee na déedéet xale bi nag bi mu ko saraxee xale bi di dugg ci oto dem. waaw waaye doonul ursa. Mm. papa loolu daan na fi faral di am. déedéet mosul fi am. mosuma mosul fi am mosuma ko dégg. waaw ce que euh, am na ñoo xam ne nee nañ loolu maanaam ay sacrifice lay doon. xam nga loolu mën na nekk waaye ñun mënuñu ci wax daal ndax daral bi koo jënd saraxe xarnoo ak koo jënd rey mm-hmm. mënuñu ko lim. bés bu ne dina am mhm. lu ko dal fii mhm. bés bu ne ñu añ fii am jàmm lu bari na fii ñiy jënd mhm. rey ak ñi jënd joxe noonu am waaye li mu ci am papa mairie bi daan nañ fi yabal ay nit ñu ñëw di xool seeni jafe-jafe foofu moom bëgguñu ak si foofu suñu dikkaandu lañ ñu ngi jëflante ñu war a jëflante am na li nga xam ne mun nañ ko def am li xam ne bu manqué ñun ñoo ko war defal suñu bopp waaye suñu diggante ak ñoom hmm. amul benn problème bi nga xam ne réeré nañ ci. fii am na ay gardiens. am na ay gardiens. kan moo koy fay. ñun ñoo koy fay. yéenay cotiser fay ko. waaw mosuñu leen cee jàppale. mbele. mosuñu leen cee jàppale. mosuñuy jàppale ñun ñoo tey boo doon ñaan wala ngay wax loo xamante ne bëggal nga ko daral bi pour nit ñi fi liggéeyee ñu mën di nekk ci jàmm lu muy doon. dégguma li nga wax. ne tey boo doon am loo doon wax autorité yi ci loo xamante ne ñu defal leen ko pour ñu fiy liggéeyee mën a nekk ci jàmm ak sécurité lu muy doon. xam nga loolu. Mhm. man bëgguma ci suuf. Mhm. koy waral mooy toujours. Mhm. ñu wokk fi benn baat wala ñaar ñu yokk ko jokaat ko be toujours ñuy liggéey. ak seen diggante ak gouvernement bi. am na lu manqué. waaye mënul mot. ndax ñun lu ñu liggéey ci suñu poos lañu koy def suñu ju laajoon mbele danañ juute wala duñu juute awaa ñi mu ñu defal dara fekk dañu juute wala juuti wuñ boo fekkee juuti wuñu ñoo yéen suñu bopp bu fekkee mu ngi juute mun nañu yéen waaye nag danga nga waroon laaj loolu awaa nga laaj lu ñu ñuy defar terewul nag gouvernement bi lépp luñ ci def ci wàllu tabaski mhm. dina ko def mooma mot dara du ci manqué lépp lu ci manqué tam ne dafa fekk lu ñu xayme woon mu ngi fi après li ko yóbbu mu yokku ñu xayme comme ni nga koy xamee rek deux cent mu fi war a nekk ma nekk trois cent fekk ñoom ñëw nañ boo dem nañ waaye toujours kam lépp lu ñu diggee ci wàllu ministère de l'élevage ministère des forces armées ministère de l'intérieur ak ministère des finances ñi ñoo ko sekk lépp lu ñu doon diggee dinañ ko def papa ñu ngi lay jaajëfal. waa ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ñaanal yàlla na leen yàlla yàggal ku ci jógee tam yàlla na demee fi ko gën a kawe. lu mbat da ça noo sant. Ba Ba. waaw yaa ngi fii ci daralu Tëngéej bi. waaw mais fan yi passé dañu seetlu ne dafa am benn ndaw su fi ñëwoon jënd si fi xaar sarax ko benn paa mu gaañu yow loolu lan moo ci sa xalaat. ah loolu de man sama ci xalaat nit ñi moom dañoo ñaaw njort rek mais loolu du dara ndax loo gis moom ci mbirum yàlla la waa nit moom fu yàlla nattee fu ko yàlla woote rek foofu la koy jëlee waaye loolu moom du dara ah, waaw affaire nag noo ko jàppee rek nit ñi moom noonu lañ koy gisee mais loolu moom du dara man tey tey tey damay jaay xar mais ku jëndal xar sarax ma dama koy jënd ak. ana ki ko jaayoon xar bi. non xaw ma ko wax yàlla man moom sama place ah, yow xamoo ki ko jaayoon xar bi. non non fekkee nga ko. waaw man fekk naa fekk naa. kon ah ba muy gaañu ci sa kanam la gaañoo. muy gaañoo sama xanam man maa jël sama kaala muur ko sax. ah yow yaa ko muur. Ah. nu mu doon def expliqué ñu. non xaw ma nu mu def ak yàlla loolu moom mënu dafa daanu wala dafa wéeru wala dafa dafa jékki-jékki rek tëdd. non man damaa ñëw fekk mu tëdd damaa fekk mu tëdd. nga muur ko léegi ana bi. xar bi kay gisuma jour boobu laa ko bàyyi fii nga mu ñëw guddee nañ fi ndax dañoo sappoor sappoor ñëw. sapoor ñëwee fekkee gaañu léegi sapeur nee ne day dem woy police ndax léegi moom liggéeyam weesu léegi nag sapoor delluwaat dem woy police police ñëw def constat nekk fii di enquête bu affaire. yow fekkee woon nga li fi xewoon. waaw fekkee naa ko. Hmm. yow xam nga ki ko jaay xar bi. non kam keke jaay xar bi si daral bi la bokk. si daral bi la bokk. waaw tamit euh, moom tamit nëbbuwul tamit moo ko jaay xar bi ndax client bi daa ñëw fii. Mhm. muy xale bu jigéen bi kal bu ndaw la sax. fii. Ah. jëndkat bi dem bee fële daje paa bi sarak ko paa bi paa bi nag daa mel na daane woon ci wayaat daa jógee kiram di dem Dakar waaye bu mu ko jógee kar bi nag mu ngi paa bi yor ay saakam teg foofu saak bi nee na day jële foofu ay wot julli takkusaan ba pare yor kurusaan werde ba pare foofu téléphone am ba ñu wàll suufóor waxtaan ak suufóor bi ba ay fekk 2500 pour yóbbu ko paa bi daal foofu la mu jël foofu la daal. kon moom gaañuwul ci saa si. ci saa si noonu la bu mu dë noonu rek bu waxtaan ak euh, jël oto bi daal. ci biir loolu def la daal. ndaw si ba muy ñëw dafa muur kanamam wala. noo ndaw si mu ngi yor comme comme ni ngeen soloo nii rek noonu la gaaw a solo rek waaw noonu rek benn kàlla bu jigéen bu ndaw sax. waaw daa mel na kar bu weex la doon wut sax gaa yi ñoo ko forcé jaay ko benn noir bala jël ko sarax ko ah. xam na mën na am ndogal yàlla tamit kon moom dafa ñëwoon jënd xar bu weex léegi ko xar daa amul comme lu mu doon wër la xam nga jënd moom mën nga jëf tey nga wax ka béy laa jënd sax nga dem fekk foofu kar nga jënd ko dara moo mel noonu yow jàppoo ne dafa am loolu lu tax mu jublu ko c'est-à-dire liggéey moo tax mu def ko wala ndogalu yàlla la rek ça dépend yàlla moo ko am loolu ñun moom mun nañ si jaaw ñorut mun nañ si bañ a jaaw ñorut ndax góor gi bu doon bu dee yàlla wax na foofu la waroon yem rek ala kulli xel foofu la yem waaye tamit mun na doon leneen tamit waaw. après ba affaire bi amee est-ce que nañ fi ñoom. waaw ñëw na police moo ñëw waaye sax pour woo nañ sax waaye ñëwagul waaye police moo ñëw daal. police moo ñëw waaw police daal moo ñëwoon. waaw saa su ne nii lay demee ci biir euh, wax feeñ lépp loo xamante ne day xew ci société bi euh, dinañ leen ko indil population bi ñu wax ci seen xalaat tey gis ngeen ko fii lañ ñëwoon ci euh, juuti bu tëngeej nga xam ne dafa bokk ci identité du tëngeej mu amoon lu fi xewoon mooy dafa am ku ñu saraxoon xar euh, mu gaañu euh, saa su ne dinañ leen indil information wala actualité yi nga xamante ne mooy xew ci dëkk bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox benn ba beneen yoon incha allah.